xew na ci diggante ñetti at yi euh, ay dënd yuy jóg ay wax yuy bàyyi ko fu ne yoo xam ne ci réseaux sociaux yi lay jaar ci ñaare bu plateau télévision amee ba ja ba jàll euh, ci ay wax yuy joxlante ci biir tarixa yi awalan damay wax ne tarixa yi euh, faw ñu dégg mafhumu tariq tarixa lan moo ko tax a jóg ci lislaam xam nga lislaam doonu diine joo xam ne bi mu sosoo dañoo fab lépp sol ci benn wurmbal maanaam lislaam diine la ju yaatu te diine jàpp ndal la boo gisee eh, mazahib al arbaa imam malik imam shafii imam xanifa imam ahmad loolu ñeenti mazhab la te pourtant malik day nangulee shafii gàntu ko dégg nga shafii nangulee ahmad gàntu ko xanafi daganal lee malik sib ko yooyu eh, ci mazahib yi la waaye loolu lépp dañoo war a comprendre gëm ne ci diine jile ci biir lislaam seenu bu wuute yërmande la ci xeet wi waaye bu fekkoon ton ni eh, bay maase la nga xam ne ku maalik ndàkku du amati fenn foo làqu foo jëm xanaa génn lislaam ah, loolu dana nekk lu lu lu doy war tariqa yi itam boo gëstoo seen biir te topp seenum njàngale ak seeni jàngat da nga yëg ne mag ñi ko sampoon benn jubluwaay bi lañ amoon mooy dundal sunna su yonante bi sallallahu alayhi wa sallam loolu rek mooy seen jubluwaay weesu lool boo demee ci sëñ Tuubaa loolu nga fay fekk boo demee ca feneen loolu nga fay fekk mu tarixa yi tiijaan moo fi nekk xaadir ak saasili ñett yooyu rek ak murit mooy ñett yooyu ci ñi nga xam ne jàpp nañ muy ab tarixa am ñoo xam ne jàppuñ ko tarixa daawa woo xam ne dañ ko war daawa al islam yi rek woote l'islam rek la li fi yonent bi woon lay dundal loolu lay yeesal am ñoo xam yoon wi waaye téréwul nag lu yëngatu ba taxaw am autour waaw lu yëngatu ba taxaw am autour kon boo demee ci sëñ bi mu ne fa kullu wirdin yuridul murida li xadratillahi walan yaxida sawan intama ila aljilani aw intama li ahmad attijaani aw li siwa uma min al aqtaabi iskulluhum qataan ala sawaabi wirdu wu nit mën a jàpp te sellal ko sukkandiku ca charte ya di ko jëfe dana la àggale ci péebu yàlla moo xam wirdu wu askano la ci ahmad yi nga xam ne tijaan nga yor wirdu tijaan wala ah, ah, ah, abu asan ashashali wala mu bàyyi koo ci si Abdul Xaadir Jilani wala keneen ku ñëw ci xut buy sax dégg sëñ bi loolu yemul ci bind ko ci ay téeréem waaye da caa boole di ci yar sax aw nitam dégg nga sëriñ Mamar Jaara ay magam ci Zahir te moo ko seexal defaral ko Xaadir sëñ Mamar Jaara soxna Jaara way juróom mooy magi sëñ Tuubaa di taaru bi itam sëñ bi sëriñam waaye wér de Xaadir la ko sëñ bi jox ah? kon tey jii sañ naa adressé adresse boppam ci ci ci tarix alxaadiriya parce que wirdu xaadir la ko sëñ Tuubaa jox te am na ci biir yoonu murit ñoo xam ne wirdu tijaan lañ sëñ Tuubaa jox ñu koy def di ko jëfandikoo wirdu yëpp da koo boole téye ko ci loxoom moom sëriñ bi dégg kon nag euh, kuy bàyyi ko ci tarixa bii di xeeb bee wala ngay bàyyi ko ca bee di xeeb bee wala ngay sànniw xeer ku ne ca bee wala nga koy xeebal lam nekk wala ka ne ca bee di la sànniw xeer mbaa mu lay xeebal lam nekk maanaam loola yéen la engagé waaye engagé wul tarixa bi dëgg-dëgg engagé wul ñi nga xam ne ñoo fonde tarixa yi ndax euh, euh, gis naa ci mbindum alxaaji Malik mu wax lu mel noonu moom itam wax na ne tarixa yëpp dañuy yeggale sunu borom ci dañuy yeggale képp koo xam ne sóobu na ji ci sunu borom atruqu kulluha ila rahmaani euh, muusilatu muslikuha yaa jaani noonu la ko alxaaji Malik waxee ca xasida ga nee na turuq yëpp dañuy eggale ci yàlla subhanahu wa mu des nag li nga xam ne moo xew ci télé yeeg li nga xam ne man loolu dama ci am tuuti sama jàngatu bopp damay ragal ne mbaadu damay laaj ne mbaadu daf ci am télé yoo xam ne dañoo bootu ci ay organisation yoo xam ne eh, organe lañ ci organisation yooyu ne ci biti te am yoon wu nuy xàll ngir am axe ci yàq diine ci dama ne mbaadu mbaadu laa wax ndax li tax ma ne mbaadu itam mooy damay gis ne ñu nuy woo ci ab télé ñuy wax wax yu mel noonu waxtaanil sa sëriñ mu nga waxtaan sa sëriñ jóge fa keneen ñëw toog waxtaane sëriñam dal ca la nga waxoon weddi ca mbaamu saxal ca keneen ñëw dal ca ko ko weddi ca mbaamu saxal ca buñ ca jógee dagg ay baat yu gàtt di ko tasaare ci réseaux sociaux yi di féngali di nangam euh, pourtant ñiy wax ci télé bi am nañu ay télé beneen télé bu organisé woon loolu duñ ko jox ampleur bu toll bi ko jox duñ yëg ne sax maanaam loolu xew na imagine nekk atam jëmm ci ab tele di ci waxtaane benn bis nga jëm ci benn tele mel ni adduna su su adduna suy tukki la seetlu lu baax baax problème ñiy wax ci télé yooyu ñu leen di woo ñu ngi doon wax ci ay tele lu jiitu ñu leen di woo te télé yooyu ñu doon wax la ñuy wax fee lañ fay wax wax ji jenn la te taxul mu indi benn difficulté taxul mu indi benn nangam nangam waaye bu waxtu yu jotee nag am na foo xam ne moom bu fa demee rek coow tax bu leem nag kenn ku ne yaa koy seetantal nga xool ko jàngaleel ko sa bopp waa xam nga man damay faral di wax ne koo xam ne koo xam ne boo ko fekkoon cib saalam ñaan ko junni du la ko may kooku woote ci télé maye milliard amul solo waaw amul solo waaw donte nag kuy maye na yàlla tax ngay maye rek lu waay may nit tam yéene nañ ko ko te yàlla na ko yàlla yàlla na ko jariñoo waaye pour waxtaan ci wàllu jikko yi ak kuréel si wàllu jikko yi dañuy gis ne coow yi daal mën jàpp naa la jëru ko bu nekk ko samp bind na ci xalimaam loo xam ne doy naa wax te loola buñ cee yemee te sukkandiku ci mu doy sëkk man loolu rek laa gis